الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن شكر جوال أنه قد ساقني لوطن به نفى ما عاقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم صلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا هل الذي من بمراده اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فصار دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى شفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإني اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم متجذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين وقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفودا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك قد سرت لما لم أجد سرواك ok ok sëriñ sëriñ bi dafa waxoon ne bu nu agsee ñu bañ a téye sëriñ bi jataay bu yàgg waaye mu wax ne ginnaaw bu mu la siyaaree ba noppi yeesalaat pas-pasam ci sëriñ Touba ci yow yeeslu waaleel mbooleem pas-pasi dongo yim àndal yëpp nee na mi ngi lay seereel cantug njabootug maam Cheikh ndax nee na njabootug maam Cheikh Anta rek la fa toogaloon da la seereel it cantug sëriñ Abo ak mbooleem njabootug sëriñ Muudu Maamun gépp di yëkkati nag cantu sëriñ Modou Rokhaya gi nga xam ne tey jii yaay sëriñ Modou Rokhaya ci moom dina xamal ne jëwriñu sëriñ Modou Rokhaya yëpp a ngi nii. nee na sëñ Abo dafa génn tey sax. waaye moom la joxoon caabi ji ngir bëgg mu indi ko ndax nee na moom la doon liggéeyal nee nag mu lay xamal ne liggéey bi jërut ay wax ak cant rek la doon te wan nga ñu ci ne dëgg dëgg jataayu Serigne tubaab yi nga toogee mate nga ko sëkk. ndax sëriñ Abdou Lahad waxoon na sëriñ Modou Rokhaya na ko liggéey bi bis bu ci toj waree yaa koy tojaat booba xamutoon na toj dana ci war kon buñ demee ba nga toj lu ko rek yow mi ko waxoon yaa ko toj lu waat yees lu waat lu ko nee na nag mi ngi boole waat kaalaam ji ak daamar ji ak lim bii nga xam ne da ko joxeel boppam joxewaaleel ko dongo yëpp nee na yeesalawaat ko pas-pasam ci yow ci sëriñ Touba. nee na lépp luñ amee ci liggéey bi yàlla na ko suñ borom dogal muy sag yàgg fi te ànd ko wér ndax loolu rek la ci fas li ci des nag ñi doon liggéey da koy bàyyi ak yow alhamdulilahi rabbil ci Abidjan caabi jaa ngi noonu. sëriñ Mbacke. yàgg fi lool ci biir. bu ñu sañoon dara du ko jot. waaw bëgg nañ nga jox ko ndigal mu bëgg mu yàgg. bu ñu sañoon mu yàgg fi lool. ah alhamdulilah rabbil alamin. suñ lépp tey defoon nañ ko mu di càkk suñ diggante ak sëriñ bi waaye yeesalaat nañ ko tey. loolu rek laa ci mën wax sama xol sedd na sama xel dal na sama yaakaar dolliku na sama pëstéef gën naa wér loolu rek a fi loolu rek a fi nekk kon nag li ñu ñaan nag li ñu ñaanal suñu ci am te nii bëggul kenn ëpp cëru Sëriñ kii ba fa duggee bisimilah ñu yëpp tàllal sëriñ bi ñaan amiin ñu ne amiin ñu ne am ak Amin ya. Amin ya. amiin yaa amiin yaa amiin amiin amiin سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل السلاح وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليا خير منن وأمري يا من على عن المكان والعرض sëriñ bi nee na yéen ñii toog kat ak ñi ñëwut ñoo moom cant gi nee na yéen tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim kon nag bu alhamdulilahi rabbil alamin a agsee kenn du leen ci ëppale kenn du ci ëppale te it jëf waaye du yéeney kese rek yéeney kese rek sëñ Tuubaa du ci fay kenn kaneen du ci fay kenn yéene day ànd ak jëf ju nu gis te man koo seere waaye yéen ñii kenn ku ci ne li nga jëf ci liggéey bii wóor na ma ne da nga koo xeeb rawatina nag Moustapha mii nga xam ne moo nekkoon jëwriñu liggéey bi di jëwriñu liggéey bi bu dee jëwriñu liggéey bi nag jëwriñu sëñ Muntaxa la sama jëwriñ la jëwriñu sëñ Aliou Faye la it jëwriñu sëñ Aliou fay nag boo xamee ne daa tàmbalee ci moom ba ci Serigne Touba kenn ëppaleetu ko sëñ Moustapha jàppal ne sëriñ bi kenn ëppaleetu la ginnaaw sëñ Muntaxa nee nañ la sol ba nga ne fekk sëñ Aliou Faye nee nañ la sol ba nga ne fekk ma ànd ceeg ñoom fas yéene lu ma man def ci lu ma mën wuti kon kat ku la jàppale dana dem ku jàpp jeewit dana dem sëriñ bi nee na mi ngi sant nag ñëpp bu baax a defe naa ne ñi fi ñëwoon ñëpp sëriñ Modou Thiam ñoom kon sëriñ bi nee mi ngi sant ñi ne ci biir réew mi ak ñu nekk bitim réew ñi nga xam ne ñooy ahlu badr nee na ñoom kenn rawu ndax ñoom ñoom ci liggéey bi am na foo xam ne sax ci biir liggéey bi yu bari gis nañ leen fa te gisuñu ma fa wala gisuñu ma sax ci saayir waaye ne ndax nee na ndax sunu sang bu tedd bii badar xew na ñu teg ci ay junni junni ya Serigne Touba doog a ñëw feeñ na fekke woon na badar kon nag badar moom am na ñu teew ci zahir am na yit nu ñu teewoon ci baatin tey sax boo demee ñooñee ñoo tax waa badar dàq dàq yéefar ya kon nag sunu liggéey bi am na ñu ko xeeboon lool. am na ñu ko xeeboon lool. ceeb nañ ko lool. waaye kii nga xam na nag moomam liggéey bi di sëñ Muntaxa moom lépp àgg na ci ne lii kat man xeeboon naa ko waaye fii mu àgg fooguma ko woon fooguma ko woon kon nag li ma defe naa ne li ma ko jébbal. sëñ Fallou Galas waxoon na ne. sëriñ bi ñun ñun taalibe yi la ko santalee sëñ Touba. muy ñetti million bi. ñun la ko santalee sëñ Touba. oto bii. juróom. doon jar fukki million ak juróom. nee na ñun taalibe la ko sant lee sëñ Touba. fas wee ma sëñ Muntaxa jox. di wen. mu tudde woon ko mu tudde woon ko ca bu siyaadatu. ñaari fas. nee daa am ñaari fas. benn bi mu tudde ko Ousseyn. muy joxe yëpp. muy joxe yëpp. ba mu des ñaari fas. wenn wi di xus di xus ci des. des. fi rek. waaye nag moo tuddoon ziyaadatu nag. kon nag. kuy am ndolleen rek lañ koy. kuy am ndolleen rek lañ koy def. ñun ñii nag. ñun njabootuk sëñ moo njabootuk sëñ Modou Rokhaya gii. di njabootuk Daaru Salaam gii. ñun la sëñ Touba jox tey. ñun fas wi tudd ak yokku. dellu ginnaaw nag moom du mënatut a yokk jëm kanam rek kon yàlla nu ko yàlla ak sëñ bi defal ñun ñëpp te xiir ñu nag ci liggéeyub sëñ Touba te xam ne moom képp moo am njëriñ jërë ngeen jëf sëñ Moustapha sant nañ la bu baax sant sëñ Aliou itam ak njaboot gi ñëpp dégg nañ kàddu yi nga wa jërë ngeen jëf diglul ma wax la Serigne Anta lim rawe góor ña naa ci teg billaay diglul ma wax la Serigne Anta lam foor naay misik foor naay junjum di dëkk nal naa car car mbàkke yaa ko jar yaa fi sa baay yaa koy tëggoo may sab gewal maa lay tëggal fu ma jén ñu si ma maa la xam yaay jenn waayi ku ko xam na wax ku ko man na def nee naa xeram di la diglu yow mi wax jaloore yi Seex Anta mi ko xam na wax ku ko mën na def nee naa di la diglu yow wax jaloore yi Seex Anta mi taxawlu naa fi yow Serigne Seex Anta taxawlu naa fi yow Serigne Seex Anta salaam alayhi laahu wa alihi wa sahbihi laxlaami taxawlu naa fi yéen muridi daaro waaye danaa ko yóbbu ca telem Ndakaaru taxawlu naa fi yéen muridi waaye danaa ko yóbbu ca telem Ndakaaru ñaanal la wér gudd fan am xéewal Cheikh Mountakha yàgg fi lool ñu koy bëggal